yeesu def na ay kéemaan yu bari am ñi gëm ci moom ba di ko topp muy weral nit ñi ñi feebar te di jàngal nit ñi yoonu yàlla di wax nit ñi lépp li yàlla bëgg te daanul def benn bàkkaar mësul def benn bàkkaar dafa doon def toujours li ko yàlla sant dafa doon def coobare yàlla bés bu nekk te boole ci njub ak mbogeel borom bi am ñu bari ñi ko topp di dox ak moom wante amoon na ay njiitu diine sëriñ yi ak xutbakat yi dañu fiiroon ci moom lool xutbakat yi dañoo fiiroon yéesu lool te bëgguñ ko woon a gis benn yoon ñu ngi ko doon fexeel sax pour nuñ ko reyloo wante yeesu mu ngi doon wax lépp li ko yàlla sant te di ko jàngale ak sañ-sañ ak doole ñu ngi koy wut arey ñu ngi koy wut a jàpp ba dem boole ko soldaar yi soldaar yi jàpp ko dóor ko tufli ci kawam solal ko sax benn maxana boo xamante ne dañ ko solal yéesu te mu doon ay dëj kese maxanda dëj boobu lañu solal Jésus ñu mel ni dañ koy pini te yeesu deful dara lu bon ndax jàngal nit ñi yoonu yàlla